amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa diaspora xew-xew dikk ci na waa CSD ñoo organisé nag la grande soirée dîner de gala indi na ay couturières indi nag tabarikala création yi xarañ pour le 23 septembre à le 24 septembre kan ma ko organisé Mama Gassama Gassama Diaby ñoo nag xam ne nag senegal ñëpp leen ràññee mun a woy lool mun a seen lu ñu lool mooy mairie mairie day ñëw mairie su ñëwee <laughs> ànd ak nag <laughs> dafa sëy madame Ormane ànd ak nag sama mag sama xarit mooy Salam Diallo mbir bi du yomb nag ah kan ma war a défilé de mode ak kan lañ war a war a seen ñaw joxaane laa ilaa njuga caam njuga caam yi si biir joxaane kucir dina dikk Bamba création dina dikk kan nag tafa ku muy newal garam bi rafet yi bara couture <laughs> kon mbir bi affaire du yomb kan nag foo seeni couture kooku dina dikk ay sab Diallo madame Baba Taïda eh Diallo Jeeri kooku su demee rek gën leen billahi lazim sama pël boobu madame Baba Taïda Aïcha Diallo dina dikk kon na mbir bi le 23 alhamdulilah le 24 septembre bu kenn manqué bala may sa nag couture bala may sa couture le 24 septembre bu kenn manqué bala may sa nag couture bala may sa couture dina dikk kon bir bi nat la mama ka samba bo sa bir du yomb nak joxane ko ci ko nene parna bu yag kon na affaire bi ah fusee ni ko ci ko day dik tata bar ko ci day dik man di bi dafa sa xarma ma nak bo bo lak sama lawone artiste nak ñu toj États-Unis mama mama mama mama ga sama jabi jongam maydu mama be ñaga la le 23 le 24 septembre ni ala y'a yira unis maama gasaw ma jaabi Assalamu alaikum, Mayidu. asalaamaaleykum Wa Sénégal Je suis Aïcha Diallo PDG boutique de Couture ñu ngi waajal xew-xew bu à collectif des Sénégalais de la diaspora le 23 septembre avec le 24 septembre Inshallah, à New York voilà premier jour bi le 23 septembre dîner de gala la bu neex y aura tout le monde Daba Seye euh, Salam Diallo Mary gay et Dame Sène soirée de gala bi dina Wow! le 24 septembre bi ah préparé les styliste de gën a mag ñoo fa nar fa ah fashion show bu mag moo war am incha foofu ca New York ak ay euh, styliste yu xarañ macha allah ñi fa war a nekk nag mooy Boutilimi Couture mi man mi macha allah Bamba partenaire mu ngi foofu Tafa Faat Baara Couture Bala Mañ sa sañsa VIP Fawzeni Couture macha allah Joxaane Couture kon boo bu ko kenn ratee incha le 24 septembre inshallah, à New York maa ngi woo sama client yépp yi nekk biir États-Unis yi nekk Ohio euh, New Jersey euh, Las Vegas Birmingham tout tout tout tout tout le monde ñëpp lay woo sans exception machallah pour ku kon bokk le 23 ak le 24 bu ko kenn ratee incha boutique Limite Couture mi ngi foofu. mu ngi noonu Bara Couture après magal, inshallah, dañuy waaj événement. bu après magal dañuy waaj événement bu mag boo xamante ni ñu ngi koy defee New York lay xewee ànd sa waa CSD ci nuyu suñu xarit suñu jigéen ay stylistes yu mag yoo xamante ni Sénégal lañu war a jógee fii ñoom New York am foofu défilé bu mag boo xam ne dafay def ak benn façon show boo xam ne am foofu ak benn exposition vente ci dîner de gala bi am foofu le 23 le 24 lay nekk si ànd ak ku mel ni part Bamba partenaire couture Mamadou Joxaane euh, ñu nga càmbala may sa Lamp euh, ak euh, Aïssa Diallo bu Tilimit Couture ndaanaan yooyu ñoo war a jógee Sénégal am ak Baara Couture ñëw dugg bi New York yëngal foofu di ci woonu suñu clientèle yi nekk foofu yëpp nekk Amérique Canada ñun ñëpp ñu ngi leen ci woo ñu ñëw suñu defee façon show am exposition vente bu mag a mag boo xam boo xam dina am foofu bi New York ci défilé bi weeru safar bi ci lañ nekk te weeru safar bi xam nga ni màggalu Serigne Touba bi kenn ko fi bàyyi di dem fenn waaye après màggalu Seexul Xadim bi le 23 ak le 24 ak waa collectif des Sénégalais de la diaspora fort ci New York City dîner de gala boo xamante ni man Daba Seye maa ngi ci biir Abdou Salam Diallo mi ngi ci biir maire Ndiaye mi ngi ci biir ak Bour Guéweul ak yeneen daana kon ba le 23 le 24 bu ñu ci duggee nag ca le 24 bi incha allah am na benn défilé boo xamante ni am na fa ñu koy tuddee. salaam salaam salaam salaam salaam salaam xew-xew bu bees fan lay xewee ñu ne New York City loolu kañ la. ñu ne la 23 septembre ak la 24 ñan ñoo koy def CSD les sénégalais de diaspora ànd cee kan mama gasama sama rakk ji yow boo boo yëngalee day neex ak koo àndal ram muy neex ci seen kaw septembre incha allah ci kàttanu yàlla ñu ne kan moo fay ñoom ñu ne Daba Sey ak Salam Diallo ak yeneen surprise yoo leen xamoon mama gasama rëkkal muy neex Tar Kalla euh, Mama Gassama ñom Bamba partenaire ñom Bouti Limite Couture euh, ñom Bala Mañ sa Sañse ñom Baara euh, ki ñom Tafa Fall Baara Couture ñom Bamba partenaire Couture ñom Fawzeyni Couture ñom ñep rek ak waa CSD tarkal dîner de gala la ak li nga xamni mom moy fashion show. bu ñu joggé ci dîner de gala bi nak ci le 23 ak le 24 ah jour le 24 dafay am fashion week Bamba partenaire Baara Fall. mu Moustapha Fall Baara Couture ak kan Fawzeyni ak kan Ndiouga Thiam bala mañ si sañse ak kan ah Aïcha bu buti limite ak kan ki nga xamante ni mooy Joxaane Couture kon ñaari date la 23 dîner de gala le 24 fashion week bu leen ko kenn nettali ndax dafay neex affaire de ndaanaan affaire de classe affaire de grand kon ba le 23 de 24. Euh, Amérique dafa am euh, dîner de gala bu mag bu fa am ak fashion show boo xam ni waa CSD euh, ñoom ñoo koy organiser CSD ñoo jël tailleur styliste yi nga xam ni ñoo ne ci réew mi bokk na ci baar Couture bokk na ci Bamba Partenaire bokk na ci Bouti Limite ak yeneen ni tailleur yoo xam ni ci biir Sénégal la ñu nekk waaye ak yeneen i ndaanaan yoo xam ni ñu nga Amérique ak Gambia ànd ak ay ndaanaan yu toll nii ki nga xam ni mooy salaam Diallo bokk na ci Daba Sey bokk na ci Mary Ndiaye ak waa Seng Seng Tarkal Géwal Mbaye mm, ñu fay wajal euh, ay ñaari bis yu doy war ñaari bis yu mag ci New York City donc ñu ngi ci wo ñëpp rek kep kuy doomu Sénégal kuy doomu Gambie wala doomu Amérique ñu ngi la ci wo wax ni septembre 23 euh, ak septembre 24 ah, ñu ngi wo ñëpp rek ngeen ñu fekk suñu ci man Aba ma ngi ci biir ah, mama Gassama ma ngi lay kontaane bu baax mama Gassama donc di ci wo wa sen di ci wo kep kuy Sénégambien wala ngay africain ñu ngi la ci wo bu baax a baax a baax na ko ñëpp dana neex dana metti te dina yàgg acca hello salaamaaleykum Mary Ndiaye here ah soo leen gisee toogaay bi may woo ñëpp ndax événement bu mag a am ci New York ñu ne kañ the 23rd and the 24th le 23 ak le 24 fële ci New York waa CSD ñoo oote muy organisation sénégalaise boobu di woo ñëpp ci fashion show ak dîner de gala beaucoup de artistes ci biir ku ci mel ni Mary Ndiaye ku ci mel ni sama papa Salam Diallo ku ci mel ni sama yaay Daba Sey Géwél Mbaye ak yeneen plein artistes yoo xam ne surprise lay doon ah, ak ay stylistes yoo xam ne yi jóge Sénégal ku ci mel ni Bamba partenaire Fawzini Couture Baara Couture di woo ñëpp ñëpp ñëpp ci événement bu mag boobu noonu ak fashion show cultural night ak cultural day fashion show New York the 23rd and the 24 ku ma fa dégg rek naaw ma sax yéen xanaa gisoo ni ma ak li ma